بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم إحسان إلى يوم الدين يقول المؤلف رحمه الله فصل في تعريف العبادة وذكر بعض أنواعها وأن من صرف منها شيئا لغير الله فقد أشرك ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضى الإله السامع وفي الحديث مخها, الع... مخها الدعاء خوف توكل كذا الرجاء ورغبة ورهبة خشوع وخشية إنابة خضوع والاستعاذة والاستعانة كذا استغاثة به سبحانه والذبح والنذر وغير ذلك فافهم, فافهم هديت أوضح المسالك وصرف بعضها لغير الله شرك وذاك أقبه المناهي
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته جدل سواد ان شاء الله عندك الامام الحافظ الحكمي في منظومته سلم الوصول من فصل في تعريف العبادة وذكر بعض أنواعها وأن من صرف منها شيئا لغير الله فقد أشرك كن بنت بي نكتي بنت بو أم صلالة mi ngi jëm ci li gën a rëy ci loo xam ne mooy tax borom bi tabaraka wa taala bind bindeefam yi xellu muy jinne ak nit muy jaamu ko kon faslun fi taarif al ibada kon bunt bi mi ngi lim tàmbalee mooy xamle maanaam définir lan mooy ibada dañ xam ko wa dikri baadi an anwaaiha ak tudd lenn ci ay xeetam maanaam jaamu yàlla ay xeet yu bari la kon dana wax lan mooy jaamu yàlla dana wax lenn ci ay xeetam wa anna man sarafa minha shay'an li gayri llahi faqad ashraka wa anna man sarafa ak ne koo xam ne dépassé na minha ci moom shay'an dara li gayri llahi ñeel ku dul yàlla maanaam ku jël wenn xeetu jaamu yàlla jox ko keneen ku dul yàlla nee na faqad ashraka bokkaale na kon bunt bi yàq yëf yooyu la ci fas yéene leeral door a jàll mooy nan xam jaamu yàlla mooy lan nan xam lenn ci xeetu jaamu yàlla yi nan xam benn régal bu nuy won ne ak jaamu yàlla ku ko defal nit kon da ngaa bokkaale kon ñett yooyu ci la wax ji jëm mu tàmbalee ci bu njëkk bi kon mu ne summa al ibadatu hiya ismun jaamiu li kulli ma yarda al ilahu saamiu summa gannaaw loolu yi jàll lépp al ibadatu jaamu yàlla hiya moom ismun jaamiu ismun aw tur la jaamiu woo xam ne dafa boole li kulli ma ñeel lépp loo xam ne yarda dana ko gërëmloo al ilahu buur ba assaamiu ka di aji dégg maanaam sunu borom tabaraka wa taala nee na daal ibaada buñ ko waxee benn terme la boo xam ne dafay boole lépp loo xam ne sunu borom tabaraka wa taala gërëmloo na ko rek ci biir jaamu yàlla ci la bokk moo tax cheikhul islam ibnu taymiya ba mu koy définir borom téere bi ci la ko jële daf ne hiya ismun jaamiun li kulli ma yuhibbuhu allahu wa yardaahu min al aamali alzahirati walbatina mu ne aw tur la ci lépp loo xam ne li borom bi tabaraka wa taala bëgg la ci jëf yi nëbbu ak yi feeñ maanaam jëf yi feeñ ak yi nëbbu ismun jaamiun li kulli ma yuhibbuhu allahu wa yardaahu tur la woo xam ne dafa boole lépp loo xam ne yàlla bëgg na ko gërëm loo ko min al aamali zahirati ci jëf yi feeñ wal baatinati ak yi nëbb mboolem jëf yi doomu aadama di jëf yépp tudde ko ak jaamu yàlla ñaari xaaj la benn bi dafa feeñ bi ci des dafa nëbb jëf yu feeñ yi bokk na ci tudd ñaari seede yi ñu dégg ko ci wax laa ilaha illa allah kooku jëf ju feeñ la ñaa ngi koy dégg taxawal julli ci la bokk joxe asaka ci la bokk nit ñi mën nañ cee teg seen bët woor nekke noonu ci la bokk dem aji jihaad fi sabilillah woote ci yoonu yàlla digle lu baax tere lu bon loolu lépp ay jëf yu feeñ la jëf yu nëbb yi nag day yoo xam ne diggante jaam bi ak boroomam la maanaam nit ñi mënuñu koo xam xëy na rek mën nañoo gis ay jeexit yoo xam ne mën nañ caa tegtaloo ba xaw a rafet njort waaye mënuñu koo xam dëgg-dëgg diggante mu boroom comme lu mel ne al iman ci boppam al iman billah gëm yàlla gi nga gëm yàlla fan la tolloog dëgëre la kooku jëf ju nëbbu la sa diggante ak sa borom la nit mënu koo xam nekk noonu ponki ponki gëm yàlla yépp dafa naa ponki gëm yàlla lu bari ci yéen xam nañ ko arkaanul iman wala jaar na jaar ci ñaata la juróom benn mooy gëm yàlla gëm ay malaayikaam gëm ay yonentam gëm ay téeréem gëm bis penc bi ñëw gëm dogalu yàlla ci lu metti ak lu neex kon juróom benn yooyu yépp nit ki nu mu ko gëmee kooku digganteemul boroomam la nit ñi mënuñoo xam dëgg rek kooku la ñuy tudde al amalul baatina mooy jëf yu nëbb yi lu mel ne ragal yàlla fan la toll wakiirlu ci yàlla di tuubal yàlla ci sa xol ragal ko xemmem ko di ko dimmandikoo ay mbir la yoo xam ne xeeti jaamu yàlla la waaye diggante jaam bi la ak boroomam mu allif bi muy boroom téere bi dana tudd yu bare bari ci xeeti jaamu yàlla yooyu jaamu yàlla nag ngir mu mën a mokk jaam bi mën a doon ab jaam fi kanam boroomam ba mën a def li ñuy tuddee taxqiqul ubudiyya xam ne moom jaamu yàlla la bu wér faw ñetti mbir yi daje ci moom alxubb walxawfu warraja alxubb mooy bëgg gi bëgg gi mu bëgg sunu borom tabaraka wa taala bëgg ko jaamu yàlla gi muy jaamu ànd ak alxawf muy ragal dafa bëgg sunu borom ba noppi ragal ko nafsul waqt boole ko nag ak am ci moom yaakaar ñetti ponk lañ yoo xam ne bu ci manqué rek musiba am mbëggeel gi su manqué la muy jur mooy xëy na ragal gi sax mën na faa nekk mën naa yokku wante mën naa dem itam ba indi safaan ba mën naa tax mu dem ba ñeme ko ndax su ko bañee wala mbëggeel gi di feebal di wàññi ko di wàññi ko bu yàggee dana mujj dem def yoo xam ne yu yàlla di tere la yooyu su ko defee bu saxee ci xolam bu yàggee rek dafay jur yeneen bu yàggee mu jur yeneen bu yàggee mu jur yeneen bu yàggee dafay sori boroomam tabaraka wa taala kon kooku ma mbëggeel gu manqué musiba la ci moom ragal gi it su manqué noonu lay indi moo tax mbëggeel gi ak ragal suñu borom ak yaakaar ko ñett yooyu dañoo war a am équilibre dañoo war a équilibré seen diggante benn waru cee gën a diis morom ja ba di ko yóbbu ndax bu ci bu ci yóbbu morom ja rek musiba am moo tax lenn ci salafu saalix day wax ne man abada allaha bilxubbi waxdahu fa huwa zindiq nee na kuy jaamu yàlla ci kaw mbëggeelu kese rek nee na kooku zindiq la maanaam daanaka moom naafiq ñoo bokk mbir ndax du jaamu yàlla ci siraatul mustaqim am na ñoo xam ne seen gis-gis ci jaamu yàlla dañuy wax ne noonu dañuy jaamu yàlla ngir bëgg ko rek mais amuñu soxla ci leneen bu ko neexee sax ba léegi sooy boobu lakk na wala bu ko neex mu duggoon waaye noonu daal bëgg nañ ko noonu koy jaam loolu am ngir mu mu xóot la mu lëndëm moo xam ne lenn ci kuréel yi soobu nañ ko ñu di leen tudde al oshaaq noonu la ñu tudde seen bopp maanaam ñi nga xam ne daal dañoo bëgg seen borom ci ni ñu koy woote woo nga xam ne seenu jaamu yàlla lépp ci ishq la jëm muy ci mbëggeel bind na sax ay téere yoo xam ne al ishqul ilahi lañ ko tudde loolu laa chaque ne ak réer la mu ne wa man abadahu bi rajaai waxdahu fa huwa murji nee na koo xam ne da ngay jaamu yàlla ci yaakaar yi kese nee na kooku ci murji ay nga bokk murji buñ ko waxee mooy koo xam ne day nekk ci ay njaaxumam ba noppi boo waxee mu ne yàlla baax na yàlla am na yërmaande kooku xeetu njaaxum wu ne rek mën na koo def xeetu mooy yàlla gu nekk mën na caa dugg lu tax mu ne yaakaar yàlla kese mu ne wa man abadahu bil xawfi waxdahu fa huwa xaruuri koo xam ne ragal yàlla kese rek ngay jaamoo yàlla am nga ci moom yaakaar amoo mbëggeel nee na kooku ci xawaari ji ngay daal di bokk xawaari ji xam ngeen ne ay nit ñu taral seen mbir lañ seenu jaamu yàlla ñu gaaw itam ci takfiir nit la muy yéefarloo ko ñu teengal seen mbirum diine lañ koo xam ne nag ragal kese kese nga jël mu doon sa jaamu yàlla nee na loolu la lay jural mu ne nag man abada allah man abadahu bil xubbi wal xawfi wal rajaa fa huwa muminun muwaxid wax ju am solo la cheikhul islam ibnu taymiya mi ngi koy tudd ci téere mi jox al ubudiyya nee na koo xam ne nag dangaa boole ñett yooyu muy jaamu yàlla ci ragal ko ak yaakaar ko ak bëgg ko nee na kooku mooy ki gëm yàlla mooy ki am ki am tawxid kon ñetti pàq lañ yoo xam ne ñetti ponk lañ yoo xam ne mënuñoo ñàkk ci jaamu yàlla jaam bi lii màndargam ubudiya dëgg nag maanaam ne nit ki mi ngi jaamu yàlla dëgg mooy mutaabaatu rasul sallallahu alayhi wa sallam mooy li yàlla indi ci li yonent bi indi ci diine tam jóge ci boroomam nga jàpp ca loolu di ko jëfe maanaam tamassuk bi sunna waaye amul beneen màndarga muñ ko mën a xamee du caa gi ne ay kéemaan yu bari yu muy def wala leneen loo xam ne mën nañ cee sukkandiku ba xam ne kii ku baax la moo tax al imaamu shafii dafay wax te al imaamu dahabi nañ ko nettali ci téere bi ñu wax siyaru alami nubala mu ne ida raaytum rajula yamshi ala alma aw yatiru ala alhawa fala tusaddiquuhu xatta taalamu mutaabaatahu li rasulillahi sal allahu alayhi wa sallam ne bu ngeen toogoon gis waajoo xam ne day jaar ci kawum ndox di dox mën naa jaar ci dex bi waaxu di dem wala ngeen gis ko muy naaw ci jaww ji di dem nee na bu mu tax ngeen gëm ko mukk li fee xoolu leen ba xam nan lay toppe yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon ci topp yonente bi alayhi salatu wasalaam ci la ñuy xamee ubudiya nit ki ne jaamu yàlla bu baax la wala ñu àtte ko ne jaamu yàlla bu baaxut la maanaam ndax ci ñàkk a toppam yonente bi waaye du caagi ne yeneen yu muy feeñal ndax xeeti karaama ak jommaleeg yu mel noonu yooyu moom iblis moo ko ëpp la ñëpp moo ko ëpp la ñëpp kon loolu doonu firnde joo xam ne foo ko gis fu ne rek mbaaxa fa nekk léegi-léegi nag am koo xam ne mbaaxa nga fa ba noppi mu feeñ fa waaye nag taxul mu nekk màndarga ma mbaax ma dëgg-dëgg mooy lan mooy ne kooka dafa jàpp siratul mustaqim dafa topp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam li ñu tudde qaidatul ubudiyya nag maanaam mu jaadu jaam bu nekk xam ko muy régal bi nga xam ne mooy régalu jaamu yàlla bi nga xam ne kuy jaamu yàlla war nga koo xam ndax sa tawxid mën a dëgër ba doo tàbbi ci bokkaale maanaam ba sa jaamu yàlla du yàqu boobu moo di ne mépp mbir moo xam ne suñ borom tabaraka wa taala da la koo digal nga war koo def mu doon ak jaamu yàlla boo ko ko defalee ba noppi defal ko keneen yaa ngay bokkaale rawatina nag boo ko defalee keneen foofu te defaloo ko ko yooyu yépp nag day dellu ci ñetti ponk yooyu nu romboon léegi muy ragal yàlla gi ak mbëggeel gi ak yaakaar gi yooyu ci la nit ki di jàpp ba am tawxiid ci la ñàkk a jàpp itam ba tàbbi ci bokkaale ndax jamono yoo xam ne yaakaar nag keneen ku dul yàlla wala leneen lu dul yàlla ba yaakaar jooju àgg ci moom ci mu teg ko place ba mu ko waroon teg ba mu waroon teg boroom kon bokkaale dal na ñëw ragal ji noonu bu ragalee ku dul yàlla wadul lu dul yàlla ba teg ko place ba mu waroon teg yàlla bokkaale dal na ñëw mbëggeel gi noonu su bëggee ku dul yàlla wala lu dul yàlla ba teg ko place bu ma doon teg yàlla bokkaale dal na ñëw kon ñetti ponk yooyu moo jur li ci des lépp moo tax même jaamu yàlla yu bari yi mu tudd fii boo ko seetee yépp ci biir loolu rek lay jàll mu ne wa fi lxadiisi muxuha duaau xawfun tawakkulun kada rajaau maanaam kon dafa commencé di tudd nag xeeti jaamu yàlla yi mu ne wa fi lxadiisi ñëw na ci xadiis muxuha mux buñ ko waxee ci arab mooy ak yuur ak yuq li ne ci biir yax bi adduaa mooy ñaan maanaam ñaan mooy jaamu yàlla gu mag gi waaye nag xadis boobu di wax ne adduaa muxul ibaada xadis boobu moom wérut xadis bi wér mooy adduaa huwa al ibaada yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ñaan ci boppam mooy jaamu yàlla sax foofu kon loolu moo gën a dëgër xadis bi naan ñaan mooy yuqub wala yuurub wala yuurub gëm yàlla wala yuqub gëm yàlla kon xadis bi wax ne ñaan ci boppam mooy jaamu yàlla xadis boobu moo gën a dëgër bi naan mooy yuuru mooy yuuru jaamu yàlla waaye xadis boobu borom téere bi junj foofu ñu xam ne xadis bu wérut la mooy adduaa muxul ibaada bi wér mooy adduaa huwa al ibaada kon mu ne ñaan ci jaamu yàlla yi la bokk li ko waral mooy sun borom tabaraka wa taala digle na ko borom bi ne wa qaala rabbukum uduuni astajib lakum yàlla moo ne ñaan leen ma ma may leen inna alladina yastakbiruuna an ibadati ñi nga xam ne dañuy rëy rëy li bañ maa jaamu kon nga xam ne ñaan gi mooy jaamu ndax daf ne ñaan leen ma ma may leen waaye ku ci rëy bañ maa jaamu day sayadxuluuna jahannama daaxiriin ñooñu danañ dugg ajjana sawara ànd ak seen toroxte ak seenu sax fa ba faw kon foofu laay ji dafa digle ne suñu borom tabaraka wa taala daf ne na ngeen koy ñaan daa di ne nag ku bañ a ñaan kon li muy firi bañ a ñaan sa borom ñàkk koo jaam la kon nga xam ne ñaan ci jëmmi boppam jaam bi am ay aajoom dem jàpp ñaari julli ñaari rakkaam wéet tàllal ay loxoom ñaan boromam li mu soxla kooku lam njëkk a def na gëm ne ci jaamu yàlla la nekk boo xam ne dañ ko ciy bindal tuyaaba moo xam la muy ñaan teg na ca bëtam wala tegu ca bëtam wante ci jaamu yàlla la nekk qul ma yabahu bikum rabbi lawla duaakum la la borom bi wax su dugal seenu ñaan ñaan yi ngeen di ñaan seen borom nee na kon yàlla du am du leen faale du leen faale ma yabahu bikum rabbi kon ñu xam ne ñaan ci jaamu yàlla yu mag yi ci la bokk loolu moo tax yàlla dong lañ ko war a def jamono yoo xam ne wéet nga sa borom fi sa béréb di ñaan yàlla tudd fa keneen sax yaa ngay dugg ci njaaxum yaa ngay dugg ci njaaxum moo tax nit ñi war nañu wattandiku lu bare bare bari tàllal seeni loxo di ñaan ñaan yàlla ba àggal di wax ne ci barkeb diw sàngam wala yu nuróog yooyu ndax day mel ni yaa ngi tudd keneen ci kanam sa borom te loolu jaaduwul fi nga tàllale say loxo di ñaan sa borom sa xel sax mu mënee bañ a dem ci leneen lu dul sa borom tabaraka wa taala bu mu ci dem loolu mooy tawxid yoo xam ne ju sell la mu teg ci ne xawfun maanaam ragal ragal sa borom borom bi tabaraka wa taala nee na fala taxaafuuhum wa xaafuuni in kuntum muminin nee na bu leen ragal kenn ragal leen ma su fekkee ne gëm ngeen yàlla loolu lu ma ta bàyyi xel la borom bi nee na na ngeen ko ragal waaye bu leen ragal keneen dafa nekk nag ñaari xaaj ragal dafa am ñaari xaaj yu bari yoo xam ne danañ ko jàng fii dañoo am ñaari xaaj di ci am boo xam ne xawfu tabii yi lañ koy tuddee nga xam ne ak ragal la gu dëppoog natiiru doomu aadama nit ki dox ragal oto dal ci kawam mu daw jéggi tëli bi kooku duñu wax ne day bokkaale ndax loolu natiir la doomu aadama dafa ragal ragal na jaan màtt ko mu daw ragal na ku ko ëpp doole lor ko mu daw wala mu sàkk pexe ba mucc ci moom googu ragal taxut ñuy wax waaye ragal ga tax ñuy wax xawfu sir la tudd maanaam loo xam ne ci biir xol bi la nekk wéet fi béréb jàpp ne diw sàngam mee daal xam naa ne su ma ko defalut nangam wala mu bokk ci ña ko topp sax wala nangam ak nangam am na lor ju mën a dal ci sama kaw joo xam ne ci moom lay jóge ah ragal gu mel noonu moo tax ragal googu mooy ji borom bi tabaraka wa taala jagoo nga xam ne moom dong la nit ki war a toog fi béréb ànd ak njàqare ak tiitaange ne kooku mooy ki nga xam ne su ma ko jaamuwut toskare mën naa dal sama kaw su ma deful lim bëgg bàyyi lim bañ alkane mën na maa topp ba faaw kooku mooy sunu borom tabaraka wa taala waaye keneen ku mën a doon mbiram àggul foofu mënees na koo ragal nag ci wàllu zaahir parce que mën na laa lor ci kaw ëpp la doole wala yu nuroog yooyu moo tax mu ne xawfun teg ca ne tawakkulun tawakkulun mooy wakkiirlu dañuy wax ne tawakkul mooy ictimaadul qalbi ala allah xol bi ci boppam sukkandiku ci boroomam mu yëg ne pajum aajowam ci boroomam la jóge borom bi tabaraka wa taala digle na ñu wakkirlu ci moom ci aaya yu bare bare bari comme fi ne wa ala allahi fatawakkalu in kuntum muminin na ngeen wakkirlu ci yàlla kese su fekkee ne gëm ngeen ko waxaat ne wa ala allahi falyatawakkalil muminuun ñi gëm yàlla nañ wakkirlu ci yàlla ci xadis omar ibnu alxataab radiallahu taala anhu yonente bi sal allahu alayhi wa sallam ne law tawakkaltum ala allahi xaqa tawakkulihi su ngeen wakiirlu woon ci yàlla dëgg-dëgg wakiirloom la razaqakum kama yarzuqu tayr kon mu wërsëgal leen ni muy wërsëgale picc taxdu ximaasan wa taruuxu bitaanan nee na picc yi bu ñuy xëyee ci seen tàgg yi di dem ab xiif li ñuy yóbbaale waaye bu ñuy gont di ñëw ab suuraay li ñuy indaale maanaam biir yi day fees dell wakiirlu nag bu ñu ko waxee moom itam du caa gine mooy nga bàyyiliku xëy toog ci sa kër rek ne wàkkiilu naa ci yàlla dana ma defal lépp ndax moo ma bind te dana ma wërsëgal kon naa toog rek wërsëg wi dana ñëw déedéet borom bi tabaraka wa taala moo bind wërsëg yi waaye jaarale wu ko ci noonu daf ko jaarale ci nga jël asbaab yi maanaam lenn lu nekk nga jàpp ci yoon wa ñuy jaar ngir am ko moo tax daf ne famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi nushur leena ngeen dox ci kaw suuf si fàggu ji wërsëg kon yàlla dana leen wërsëgal loolu dàqontewut kon ak tawakkul dafa am lu ñu tudde tawakkul am lu ñu tudde tawaakul tawakkul mooy wàkkiirlu tawaakul mooy bayliku bayliku moom dañ koo ŋàññ musiba la mooy ku xëy toog rek ne mbir yi dana ñëw doo nangoo liggéey doo nangoo def benn effort doo nangoo sonn nu mu gën a yombee rek nga jàpp ne noona la loolu musiba la day delloo gannaaw nit di delloo gannaaw këram di delloo gannaaw sax am réew am réew ña fa nekk dañoo war a yëngu di def loo xam ne askan wi dañ cay jariñu mu di ca jariñu moom itam kon wakkiirlu noonu la da ngay jël sabab yépp ba noppi nag sa xol nga gëm ne àggale ga ci suñ borom rek la nekk danañ koy faral di misaale nit koo xam ne dafa jóg bëgg a tukki ab dëkk boo xëyoon fii ne da ngaa bëgg a dem ndar xëy feranklaayu rek ci sab lal ne am naa yéene dem ndar te yàlla ginnaaw mën na ma fa yóbbu kon dana ma fa yóbbu mën ngaa taw bu ngoon te doo dem ndar waaye nag boo kër këree ba am paas bi jóge ci sa kër dem ba ca fa oto yi taxaw nga ne ana oto ba jëm ndar ñu ne la mi ngi nii nga ne sama paase ngi daal di dugg toog kooku mooy asbaab yi sabab ya nit daan def di àgg ndar def nga ko nag ba toog waaye ndax àggale ga ci sa loxo la nekk déedéet da ngay gëm ne àgg ndarga ci sa xol ci sa loxo la nekk foofu la wakkiirlu ki ñëwee nag ndax nit def na ko ba noppi taxul mu àgg ndar kon bi nga ko defee ba àggal gëm ne yàlla ga ci gëm ne àggale ga ci loxo suñu borom tabaraka wa taala la nekk loolu mooy wakkiirlu ga looy def lu nekk da ngay jaar fañ daan jaar di ko am boo fa jaaree ba noppi nag àggale ga nga gëm ne suñu borom tabaraka wa taala moo ko yore kooku mooy wakkiirlu ci suñu borom tabaraka wa taala jamono yoo xamee ne nag nit ki dem na ba ñaar yooyu ñu doon wax ragal gi wala wàkkiirlu gi nit ki mi ngi koy defal nit wala mu koy defal mbindeef moo xam jinne la wala malaaka la wala nit moo xam ku baax la moo xam sax ab yonente la am déet mu ne ci moom laa wàkkiirlu xamal ne ma ngay bokkaale ndax dañuy wax ne kuy wàkkiirlu da ngay wàkkiirlu ci lu dul daanu maanaam kuy wéeru da ngay wéeru ci lu dul daanu waaye kuy wéeru ci lu daanu luy daanu loola su daanoo nooy def ànd ak moom rek ànd ak moom daanu maanaam boo jëloon sa doole yépp teg ko ci benn bant wéeru ci bant boobu bu daanoo rek yow itam ci suuf nga jëm te ku yàlla bind ku nekk fii moom da nga fiy jóge dem jamono yoo xam ne nit ki nag wéeru na ci koo xam ne aji dem la su kooka demee kon duutu dese kum wéeru moo tax dañuy wéeru ci ki nga xam ne moo fi nekk naka jekk te du fi jóg mukk te man lu nekk kooku mooy sunu borom tabaraka wa taala kooku ci moom la ñuy wàkkiirlu kon mu ne xawfun tawakkulun tadarrajaahu nekk noonu yaakaar rajaau mooy yaakaar borom bi tabaraka wa taala digle na bu baax a baax a baax nit ñi di ko yaakaar yaakaar itam ne ëllëg moom dong moo fa man dara say mbir it moom dong moo ko mënoon baaxal kon sa yaakaar nga wékk ko sunu borom tabaraka wa taala nee na fa man kaana yarju liqaa rabbihi falyamal amalan saaliha wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada koo xam ne yaakaar nga sa borom yaakaar nga ne da nga dajeeg sa borom yaakaar jooju ñëpp ko war a am nee na kon la ko war a firndeel mooy del def lu baax te bañ a bokkaale te bañ a bokkaale jooju junji la ci ne yaakaar ku dul yàlla su boppam bokkaale lay jur nee na inna alladina laa yarjuuna liqaana wa radu bilxayaati addunya wa atma'annu biha walladina hum an ayatina gaafiluun ulaika mawaahum annaaru bima kaanu yaksibuun nee na ñi nga xam ne yaakaaruñu nu maanaam yaakaaruñu sunu borom tabaraka wa taala ak dajeeg moom doy loo rek dundug àdduna jéeg li fi nekk ci ay xéewal seen xol sedd guy ci àdduna yi kese kéemaan yi ma wone ci kaw suuf ak yi ma wàcce ci sama téere yi ñi won ko gannaaw nee na ñooñu moom seenub seenub tërukaay ëllëg fa ñuy tëdd nee na foofu mooy sawara te fekk la leen fa yóbbu mooy ñoo ko fàggoo fii ndax seen yaakaar ñoo ko jëmale woon feneen fu dul ci man kon yaakaar bi suñu borom tabaraka wa taala rek lay jëm moom it boo ko xoolee ñaari xaaj la comme niñ ko waxe woon rek ci ragal nit ki mën naa soxla mbokkum jullitam am aajo xëy ne man de tey jii damay dem ci diw sangam ndax am naa sama aajo joo xam ne day yaakaar naa ko ci lool dikk ne ko ah man de tey jii dama bàyyiwul ci kër ga nangam ak nangam ak nangam mu yëkkati loola jox la yaakaar jooju bokkul ak bokkaale nature la moom itam comme ni nga xam ne ragal dafa am côté boo xam ne tabia la muy nature doomu aadama yaakaar ju mel noonu it noonu la am kooku bokkul ak jaamu yàlla bokkut ak loo xam ne itam day àgg ci bokkaale waaye nag yaakaar ja nga xam ne da ngaa toog ci sa béréb gëm ne diw sàngam rek moo la mën a xet li nga am ci moom yaakaar ah rek la nga dégg kuréel wax ja sax ba ne diw sàngam mooy suñu yaakaar adduna ak àllaaxira loolu adduna ju tukki la musiba la kenn du ko wax suñ borom tabaraka wa taala rek la nit ki war a yaakaar adduna ak àllaaxira li nëbbu ci say mbir sax keneen xamu ko faf waxuma laa nga di ko ci yaakaar kon loolu li jullit war a bàyyi xel la mu tekkee ne wa raqbatun wa rahbatun xushuu wa xashyatun inaabatun xuduu yii mu lim yépp ay jaamu yàlla la yoo xam ne xëy na benn bu ci ne sax digganteem ak moroom am moroom ji am na ay différence yu leen tàqale waaye lu ci bare bari boo ko doon saraa ci wolof doo mën a am ay termes yoo xam ne ay baat yoo xam ne moo ko mën a tàqale waaye nag des na ko jéem a jegeel ba mu jege xol xel yi raqbatu buñ ko waxee mooy xemmemteef xemmemteef xam nga xemmemteef ak yaakaar boo leen xoolee ñaar yi jegee lañ waaye nag ki yaakaar moom dafa jàpp ne ay mbiram daal ci diw sàngam rek la mën a baaxe ay mbiram daal ci sun borom tabaraka wa taala rek la mën a baaxe mu wéer ay mbiram jëme ko sun borom tabaraka wa taala xemmemteef nag mooy bëgg la kooka yor kee lam yor soxla naa ca di def kër kër nag pour àgg ca loola kooku mooy raxba kon raxbatu fii ma inda allahi min assawaab moo tax ñuy wax xemmem ci yool ba nga xam ne suñ borom tabaraka wa taala da koo yor di ko yoolee nit ñi ëllëg maanaam ka def lu baax mu fay ko tàbbal ko àjjana loola ca nga bëgg moo waral sa kër kër ji jamono yoo xam ne nit ñi jël na xemmem téefam nag jëme ko ci keneen ku dul yàlla maanaam nga xam ne dafa jàpp ne àjjana ca loxoy kooka la nekk wala mbugal ci loxo kooka la nekk mu xemmem lam yor ci àjjana moo tax muy kër kër yi te kooka du yàlla xamal ne boobu bokkaale dikk na moo tax xemmem téef ci jaamu yàlla yi ci la bokk wa rahbatu moom it mooy arrahbatu mimma inda allahi min al iqaab ragal ragal bu tar nag rahba ak xawf ñaar ñëpp ragal lañ ko mën a firee ci wolof waaye wuute nañ alxawf ak ragal la goo xam ne ab dégare rek la ndax loolu moo tax xawf mënees na ko jëfandikoo ci ragal yàlla sax ndax mën naa dem ba àgg foofu waaye mënees na ko jëfandikoo ci yu suufee yi itam ragal lu la màtt wala ragal lu dal ci sa kaw wala ragal oto bu la fiir yooyu yëpp danañ ko tuddee xawf waaye nag bu rëxbatu dikkee nag kooku mëne su ko jëfandikoo ci ndaw ndawaan yooyu naan dafa def rëxba ci oto bi wala jaan ji màtt ko wala ñoom kooku mënatu la nekk rëxbatu moom min allahi subhanahu wa taala yàlla rek moo ko moo jagoo rëxba moo tax wa iyaaya farhabuun na ngeen ma ragal ragal googu xeetu ragal googu kon ragal gu tar la boo xam ne wala sax bu koy firi xam naa ne baat bi mu koy firee du ngeen ko xam mooy tëy tëy maanaam baat la boo xam ne jéggi na dayoo weesu na ragal gën na koo ci mel ragal ne nit ki bu faatoo boromam mën na koo lakk kooku la ñu tuddee raxbatu jamono yoo xam ne nit ki ma ngi koy jox keneen ngir ragal ne bu ëllëgee moom su ko defalut li mu bëgg su doxul bànneexi bakkanam mën na koo dugal ci sawara wa bu ëllëgee kon kooku jaamootoo yàlla waaye doomu aadama joojee ngay jaamu kon wa raxbat kon wa raxbatun wa raxbatun xushuu xushuu ba tey boo nee wolof nu mu koy firee ragal yàlla rek la koy mën a firee waaye nag dafay ragal yàlla nag ak ragal goo xam ne boo ko gisee moom it dafay ànd ak rab-rab maanaam foo ko gisee rek da nga koy xam sax ci ay cëram xam ne kii daal boo ko gisee xam ne xelam dalut kooku la ñu tudde xushuu moo tax ci nekk ci biir julli dañuy wax ne xushuu la war a àndal xushuu maanaam mënta nekk ci biir julli gi dugal ay loxoom ci poosam téen wala mu langal ay loxoom wala mu def léeg-léeg nga gis ku def noo xam ne daal boo ko xoolee da nga daan kii moom wax dëgg wërta nekk ci biir julli ndax li ñuy tudde xusoo moom nekku fa waaye nag léeg-léeg nga gis taxawaay boo xam ne ki taxaw ci biir julli gi nii mu taxawee da ngay rafet njort ci ne kii moom ànd naag xusoo maanaam ragal suñu borom tabaraka wa taala kon kooku moom mooy wayefal sa bopp lool ci sa kanam borom tuutal ko lool itam ànd ak nag xol bu ànd ak tiitaange borom bi tabaraka wa taala melal na jaamam yu baax ya ni ñaari ñetti melokaan yooyu yëpp dañoo daje woon ci ñoom muy raxbatu ragal gu tar googu ak raxbatu gi sax avant loolu muy xemmemteef bi ak xushuu bi moo tax moom melalee yonente mu ne innahum kaanu yusaaricuuna fi lxayraati wa yadcuunana ragaban wa rahaban wa kaanu lana xaashiciin nee na ñooñu dañ daan njëkkante ci lu baax mooy yonente suñu borom tabaraka wa taala yi dañ daan rawante ci lu baax kenn ku ne fas yéene ëppale ka ca des nee na boole koog nag di ma jaamu jaamu googu lu ko waraloon raxaban xememteef wa rahaban aku ragal gu tar wa kaanu lana xaashiin ñu ragal lañu woon itam ci suñ kanam ñu toroxlu lañu woon moo tax borom bi tabaraka wa taala daf ne qad aflaxa almuminuun alladina hum fi salaatihim xaashicuun xusuuc la jëfandikoo foofu nee na ñu gëm yàlla ña texe nañu ñooñu mooy ñan nee na mooy ñi nga xam ne buñ nekkee ci seen biiru julli dañuy ànd ak xusuuc mooy ragal yàlla yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci ñaan gi nga xam ne yéen ñëpp moom ngeen di ñaane su ngeen di bëgg a tëdd mu ngi wax allahuma inni aslamtu nafsi ilayk wa wajjahtu wajhi ilayk wa aljatu dahri ilayk wa fawwadtu amri ilayk rahbatan wa rahbatan ilayk mu boole ñaari melokaan yooyu ngir xemmem ak ngir ragal loolu moo tax ma def loolu maanaam ñaan googu li muy firi mooy yàlla jox naa la sama bakkan jëmale naa sama kanam ak sama ngëm-ngëm ci yow wéer naa sama wet jëmale ko ci yow samay mbir yépp jox naa la ko ngir xem mem li nekk fi yow ak ragal itam li nekk fi yow maanaam xem mem li ne fi ci yow ci yool ragal li ne fi yow ci xeeti mbugal kon daal aayey xusuwoo mook xasya boo leen xoolee ñoom ñaar ñoo dend waaye seeni aaya da ngay gis ne borom bi tabaraka wa taala digle na ko lu bëree bëri alladina yuballighuuna risalati illahi wa yaxshawnahu wala yaxshawna ahadan illa allah ñiy jot li diine yi sunu borom tabaraka wa taala boole koog ragal ko te duñ ragal keneen kudul moom tabaraka wa taala mu teg ce ne wa xasiyatan kon inaabatan xuduu wala inaabatun xuduu al inaabatu dañuy wax ne maanaaha at tawbatu nasuux wa anibu ila rabbikum tuub leen jëm ci seen boroom kon al inaabatu day firi tuub waaye nag mooy tuub gu sell goo xam ne bi ko borom tuubee delluwaatul ca bàkkaar booba noonu la ko borom xam-xam yi firee dañ ne tawba nit ki saa bu ko defee rek def na lu baax ndax tuub na bàyyi na bàkkaar bu mu doon def waaye nag mën na caa delluwaat su ca delluwaatee day tuubaat rek waaye dañ ne ki def inaaba nag bàkkaar ba nga xam ne moo tax mu def inaaba boobu bàkkaar moom xanaa beneen waaye boobu moom bàyyi na ko ba faaw kooku la ñu tuddee ak tawbatun nasuux tuub goo xam ne boroom defatul bàkkaar booba ba ni muy jee boroomam kooku mooy ak tawbatu nasuux ñooñu mooy ñi nga xam dañuy dem ba ñaawteef yañ defoon suñ borom tabaraka wa taala da leen koy wëlbatil faf mu soppiku ay tuyaaba jëmmi ñaawteef yi ci boppam ulaayika yubaddilu llahu sayiatihim xasanaat yàlla day soppi seeni ñaawteef mu wëlbati ku nekk ay xasanaat ngir tuub gu sell ak sori bàkkaar ba nga xam ne moo taxoon ngay tuub kooku mooy al inaaba yonent yàlla Shuayb nee na woon wa maa tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib maanaam sama inaaba ci sama borom tabaraka wa taala laay dellu ci sama tuub mu daaneele baydoo mu ne xudoo xudoo nag li muy firi mooy toroxlu moo xusoo moom seen maanaa soréw ñoo dend mooy toroxlu fi sa kanam boroom toroxal sa boroom doo wone xeetu lé lenn lu niroog xeetu rëy ci sa kanam boroom tabaraka wa taala da nga koy sori mu jàll ci weneen wi mu ne wal istiaadatu wal istiaana kada istigaasatun bihi subhaana wal istiaadatu kooku mooy muslu boo ne audu billahi kooku mooy maa ngi sàkkoo muslu ci saa borom maanaam mu làq ma ba ma mu mën a mucc ci ndàngam mooy jafandu ak wéeru ak dimbali ko sa borom tabaraka wa taala yooyu yépp day dugg ci maanaam yi moo tax seytaane nga xam ne yàqal doomu aadama moo ko tax a jóg te jàng alxuraan bokk ci yu gën a rëy ci yuy jëriñ doomu aadama ji fa boroomam kon saa boo xamee ne jaam baa ngi jàng alxuraan seytaane nga koy jéem a yàqal moo tax boroom bi digal ci nit ne kat bi jàng alxuraan la muy jëkk a tàmbalee mooy muslu ci yàlla làqu fa boroomam ba mën a mucc ci seytaane mu ne wa ida qara'ta alqurana fasta'iz billahi min alsheytani arrajim soo jàngee alquran na nga muslu ci seytaane na nga muslu sa borom làq la nga mucc ci seytaane wax ne qul audu bika min hamazati shayatin nga xam ne maa ngi muslu ci yow ci làqu ci yow saa borom ci jax-jaxale seytaane qul audu bi rabbi lfalaq min charri ma xalaq waxal ne dinaa muslu ci ki nga xam ne moo moom suba ak ngoon moo moom mara wal falaq min charri ma xalaq ci ayu lépp loo xam ne bind na ko qul audu bi rabbi nnaas maliki nnaas ilahi nnaas min charri ba saar wa jeex maanaam boo xoolee aay yooyu yëpp borom bi def la ci digal ci nga muslu ci moom maanaam nga làqu ci moom ngir nga mën a mucc ci nangam ak nangam kon jëmmi làqu boobu làqu xol la waaye làqu jëf la itam ci sa wàllu xol da ngay gëm ne sa borom tabaraka wa taala képp moo la mën a fat moo la mën a musal ci seytaane moo la mën a musal ci lor moo la mën a musal ci jabar buy jabar moo la mën a musal ci yàqkat moo la mën a musal ci lépp kon nga làqu ci moom xeetu làqu woowu ak jaamu yàlla la ndax borom bi moo la ko digal kon reegal ba lam lay wax mooy xeetu làqu woowu boo ko wutee def ko ci keneen ku dul yàlla wala leneen lu dul yàlla ak lu kooka baax baax wala lu loola baax baax yaa ngay bokkaale kon làqu gi moom fa sun borom tabaraka wa taala rek la nekk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon na wax ci xadis ba nga xam ne ma nga ca muslim audu bi kalimati llahi tammati min charri ma xalaq audu bi kalimati llahi tammati min charri ma xalaq maa ngi muslu ci làqu ci kaddu yàlla yu tedd yi ci ayu lépp loo xam ne lu mu bind la kooku mooy wane ne waxi sunu borom tabaraka wa taala du mbindeef du mbindeef ci melokaani sunu borom tabaraka wa taala la bokk ndax su fekkoon ne mbindeef la kon ku ca istiaada kon day mel ne yaa ngay jaamu mbindeef kon te jaamu mbindeef waxtaane lay doon kon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam li mu wax foofu rek day wane ne waxi yàlla ci boppam nekkul maxluuq maanaam waxi sunu borom tabaraka wa taala ci ay melokaanam la bokk ñaan googu la yonente bi alayhi salaatu wasalaam waxoon ne ku wàcc place wax ko yàlla dana la aar ba seytaane du la lor ba keroog nga fay jóge audu bi kalimatillahi taammaati min charri ma xalaq teg ca ne wal istiaana al istiaanatu nag mooy dimmanikoo yaa ngi def dara gëm ne da ngay dimmanikoo nangam pour loola mën a àgg soo jëloon bindukaay di bind kon dañuy wax ne bindukaay boobu moom ngay dimmanikoo pour bind li ngay bind kayit bi moom ngay dimmanikoo pour bind li ngay bind waaye nag dimmanikoo gu mel noonu taxul ñuy wax dimmanikoo gi nga nekkee ci di def say mbir gëm ne àggale ga ak jàppale ga ba nga am kàttanu man koo def ci sa borom la jóge istiaana bu mel noonu moo tax muy wax moo tax borom bi tabaraka wa taala daf ne iyaaka naabudu wa iyaaka nastain yow la ñuy jaamu yow la ñuy dimmanikoo kon nga xam ne dimmanikoo ak jaamu ñaari doomi ndey la ñoo xam ne ñoo ànd moo tax ba mu dénkee Abdullah ibnu Abbas mu doon ab xale bu nekk fi moom mu di ko yar yonente bi def ne ko ida saalta fasalillah booy ñaan ñaanal yàlla wa ida staanta fastain billah boo dee dimbanikoo na nga dimbanikoo yàlla moom rek moo la mën a dimbali moo tax daf ko caa tegal ne ko xamal ne su fekkoo ne adduna ak li ci biiram ñoom ñëpp àndandoo nañ bëgg laa lor lor joo xam ne yàlla naru ko mën a luñ la dara buñ la bëggoon a jariñ jariñ loo xam ne yàlla naru ko mënuñu laa jariñ dara kon borom bi tabaraka wa taala ci la nit ki di istiaana maanaam ci lay dimbandiku mu teg te ne kada istiraasa istiraasa nag moom li muy fii mooy xettliku xettliku yaa ngi ci musiba daal wala yaa ngi ci jafe-jafe nga sàkku sa borom tabaraka wa taala xettli la génne la ca loola waaye nag liñ ci jublu fii mooy xettali goo xam ne liñ lay xettali sa borom rek moo ko man waaye keneen mënu ko léeg-léeg nga mën a xettali ko ci nit ci dara loo xam ne kenn du wax ne bokkaale la kenn du bokkaale la ci nekk ci di dox ba mu yàgg am benn danger boo xam ne bu bëgg a dal ci kawam la te keneen mën na ca dara mu ne ko kaay dimbali ma kooku kaay xettali ko mu mucc ca loola kenn du wax ne kooku day bokkaale silmaxa suy dox ba mu yàgg muy bëgg a tàbbi ci dara nga gis ko jàpp ci loxoom ne ko wattul loolu kooku xettali nga ko waaye duñ wax ne loolu bokkaale la yarhamukallah waaye liñ jublu nag mooy nit ki jàpp ne xettali moom nit mën na koo def keneen donte nekku fa léeg-léeg nit ñi duñ ko wax ci seen i làmmiñ waaye dañuy dem ba seen i léeg-léeg sax ñu wax ko ci seen i làmmiñ ndax léeg-léeg nga gis ñoo xam ne dem nañ ba seen pas-pas fi mu àgg mooy su dansé ñëwoon ba nii seen xel dem ci yàlla mën naa dem ba àgg ci turu nit sax léeg-léeg nga gis ku musiba bëgg a dal ci kaw mu ne yow diw sàngam kooku xeetu xettaliku la waxoon des ko war a wattaliku su fekkee ci làmmiñ wala yem kooku moom sib nañ ko waaye nag su fekkee daa jéeg ji làmmiñ wa nag ba àgg ci xol ba mu gëm ne tur woowee mu tudd moo ko mën a xettali ci danger kooku moom àgg na ci bokkaale nag boobaa moo tax loolu lu mat a bàyyi xel la lu mat a yar làmmiñ yi ci ñuy wax loo xam ne dafa dëppoo ak tawxid la borom bi tabaraka wa taala ne wa istastagiisuuna rabbakum fastajaaba lakum anni mumiddukum bi alfin min almalaikati murdifin nee na bu leen fàtte bis ba nga xamee ne yéen waa Badar yéen a ngi jàkkaarloo di xeex yéefar yi ëpp leen fuuf doole ëpp leen kàttan ngeen doon ñu néew ñu doon ñu bari ngeen yor warwaay yu néew ñu yor warwaay yu bari ngeen yor ngànnaay yu néew ñu yor ngànnaay yu bari ngeen ne yàlla xett linu bu leen fàtte bis boobu ba ngeen tàllalee seen i loxo ñaan ne yàlla xett linu nee na mu wàcceel leen lu ma junni ci ay malaayika yoo xam ne dañoo war nee na bu leen fàtte bis boobu kon xettali ko googu xeetu jaamu la wax ne nit ki na wattandiku jox ko keneen ku dul suñu borom tabaraka wa taala borom bi nee na am man yujibu l muttarra ida daa kan moo mën a daal di wuyu rek xettali ki nga xam ne dafa nekk ci musiba dafa nekk ci lor ju wàcc ci kawam su fekkee ñaan na boromam wa yakshifu suu te ñaawteef dal ci sa kaw mu daal koy mën a wuññi mën koo mën dindi kooku suñu borom tabaraka wa taala ndax yonente bi alayhi salatu wasalaam ci ñaanam daf daan wax ne yaa xayu yaa qayuum bi rahmatika astagiif yaa xayu yaa qayuum bi rahmatika astagiif aslix li sha'ni kullahu wala takilni ila nafsi tarfata ayn woo sun borom tabaraka wa taala ne ko ci sa yërmaare ci laay sàkkoo xeetliku kon sàkkoo xeetliku ñu xam ne xeetu jaamu yàlla la woo xam ne borom bi tabaraka wa taala rek moo ko yeeyoo yi muy lim yëpp kon ay xeeti jaamu yàlla la mu teg ca ne wa dabxu wa nadru wa gayru dalik fafham hudita awdaxa almasalik wa dabxu nee na rend it jaamu yàlla la ndax borom bi tabaraka wa taala moo ko digle rend yi boo xam ne dañ caa jublu maanaam am ca tuyaaba yëpp rend yi boo xam ne da nga koy def ngir am ca tuyaaba xam ne loolu jaamu yàlla la kon tabaski jaamu yàlla la li ngay rendi ca ngénte la kon jaamu yàlla la ba nga ajee la ñu tudde hadiyu rendi ko loolu jaamu yàlla la loo xam ne da ngaa jékki-jékki rendi ko ngir sarax saraxe waxuma nag kenn ne la rendil xar mu xonq wala mu ñuul wala mu weex waaye yaa toog ba mu yàgg nga bëgg a sàkk sarax nga rendim xar ne jullit yi kaay leen yàpp ngi ni lekk leen loolu ci boppam jaamu yàlla tuyaaba nga ciy wut kon bépp rendi boo xam ne tuyaaba les ciy wut koo ko xamal ne jaamu yàlla la borom bi tabarak kon yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne ko fa salli li rabbika wan xar li rabbika fa salli julli li rabbik borom dong wan xar ta nga rendi itam rendil sa borom kese ni nga koy julleele moom dong na nga ko rendeele moom dong kon nga xam ne rendi jaamu yàlla la wa nusuki wa maxyaaya wa mamaati lillahi rabbil alamin sama julli ak sama rendi ga may jaamoo yàlla ak sama dund ak sama dee lépp yàllaa ko moom kon jullit bi noonu lay def waaye nag rendi yoo xam ne nit ko daf ko def rendil ko leneen loo xam ne tuyaaba la ciy wut te fekk ci keneen lay wut tuyaaba jooja loolu ci boppam day tàbbal nit ki ci bokkaale wala sax mu ci sàkku ak mucc ndax léeg-léeg jabar bi ne ko kat yow lii la dal pour nga mën ci mucc faaw nga rendi loo xam ne nangam ak nangam ak nangam la mu daal di rendi loola su ko defee ma ngay bokkaale kon yu mel noonu yu mat a wattandiku la moo tax yonente bi salallahu alayhi wa sallam wax na ci xadisu ali ibn abi talib radiallahu taala anhu bi nga xam ne muslim moo ko génne mu ne laana allahu man dabaxa li gayrillah yàlla rëbb na képp koo xam ne rendi na rendil na keneen ku dul yàlla rendil na keneen ku dul yàlla am na sax borom yi xam-xam yoo xam ne dañ cee taral ba àgg ci ne nit ki nga xam ne dafa doon sax kuñ màggal kuñ màggal lool ba mu jéggi dayo bu ñëwee na nga wartoo rendi dara loolu ulama Naysabur doonoon ay borom xam-xam yu siiw loolu ci sunna àggoon nañ ci di wattandiku lu mel noonu donte nag lu mel noonu wax dëgg yàlla mën naa bañ a àgg ci bokkaale ndax lu mu rëy rëy nag gan rek la su fekkee li nga gëm sa xol mooy gan la gooy teral kenn du wax ne bokkaale la waaye ñoom dañ daan wattandiku sax loolu ne ñenn ñu rëy ñi ñu màggal ñi suñ àggsee ci sa kër boo leen rendelee dara sax day mel ne kooku mën naa dugg ci bokkaale dugg ci rendil ko dul yàlla waaye nag loolu laa fekk ne ak taral la mu teg ca ne wa nadru nadru nag mooy niseur niseur dañuy wax ne mukallaf ilzaamu almukallafi nafsahu ibadatan lam takun waajibatan alayhi fi l asl jaamu yàlla goo xam ne waru la woon nga waral ko sa bopp ne danaa ko def maanaam bisub suba bi daal loolu woon koor ci yow nga ne daal suba fas na maa yéene woor ndax nangam ji ma saa borom defal sama kii tukki woon daal ñibb si ne bëgg naa ci danaa woor suba kooku nisar la tudd kooku nag day daal di war day daal di war ci yow na kooru ramadan ware ci yow noonu lay daal di ware ci yow maanaam boo ko deful woon suba yi da nga koy fay comme ni ngay fayee weeru koor kon nisar waajib lay doon ci sa kaw ginnaaw yaa ko teg sa bopp léeg-léeg nag mën naa doon nisar boo xam ne dañ koy tudde muallaq am boo xam ne mutlaq la niseur boo xam ne dafa nekk mutlaq mooy boo xam ne wékkoo ko ci benn condition da nga daal man suba daal bëgg fas naa yéene woor suba jot na kon woor woor woor moo lay war beneen bi mooy nga ne man de sama nangam ji di metti wala sama mbokk mee feebar wala sama mbokk mi tukki su fekkee wér na wala su fekkee ñibbisi na danaa woor ñetti fan su ñibbisee rek danaa woor ñetti fan boo xam ne dañ koo wékk ci dara nag boobu saa boo xamee ne lañ ko wékkoon am na mooy bi ñu wutaloon condition bu condition bi amee loola day daal di war ci sa kaw bu condition ba amut nag du war ci sa kaw kon loolu ñu xam ko bu baax a baax nisoor ci boppam nag dafa am dafa doon dafa am ay charte yoo xam ne mooy daje mu door a doon ak jaamu yàlla bi ci njëkk mooy nisoor bi ci boppam li ngay gisoon na doon ak jaamu yàlla lu mel ne koor lu mel ne sàkk sarax lu mel ne nangam waaye bu dul woon ak jaamu yàlla kat du am njariñ comme nga ne nisar naa rek dox fii ba biir dëkk ba loolu kenn du ci jariñ kooku amul njariñ moo tax laa nasra ah fi illa fi taatillah nisar kenn du ko def lu dul ci topp yàlla wala mu doon faf ak mooy yàlla ku nisaroon ne da ngaa bëgg a sàcc la nga xam ne gis nga ko fi béréb sàngam kooku moom du dagan mukk moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci xadiisu Aïcha radiallahu taala anha daf ne man nadara an yutia allaha fal yutiahu wa man nadara an yaasiyahu fala yaasihi ku nisar ne da ngaa bëgg a topp yàlla nee na na nga def topp yàlla googu ku nisar ne da nga koo bëgg a mooy nee na bul ko def de bul ko def kon charte bu njëkk bi mooy li ngay nisar na doon ak topp yàlla ñaareel bi na doon loo xam ne yaa ko moom na doon loo xam ne yaa ko moom waaye fekk yi fi jàmbur nga ne nisar naa fas yéene maye oto suñ Moussa Diop bee loolu du sotti ndax moom moo ko kuy nisar da ngay nisar loo xam ne yaa ko moom moo tax yonente bi alayhi salatu wasalam daf ne laa wafaa li nadrin fi maasiyati illahi wala fi ma la yamliku ibnu aadam li nga xam ne moom moo ko boo ci nisaree it ay neen la waaye tekkiwul dara kooku doo ci am tuyaaba bu dara desul lu dul àggale misère bi nag di ko def maanaam su fekkoon ne masala lu muy rendi la bokk na ci charte yi béréb ba mu koy rendee mu bañ a doon béréb boo xam ne dañ fa daan jaamu ay xiram maanaam lu mel noonu nag lu mat a wattandiku la moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu amee benn waay boo xam ne dafa nisaroon rendi gëléem ci béréb bu ñuy wax bawaana mu ne dama bëgg a re nisar na maa rendi sama gëléem gii saraxe ko ci béréb bu ñuy wax bawaana yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ku xamoon nit ñi la duñ déggee mu tudd bawaana boobu lu tax mu tànn ko lu tax béréb yi nekk fi mu ne fas na ma yéene rendi sama gëléem gi ci bawaana mu laaj ko ne ko waaw ndax dafa am benn xërëm wu fa nekkoon wuñ daan jaamu wala lu tax nga wax ko mu ne ko déedéet mu ne ko kon demal def li nga wax kon ñu xam ne léeg-léeg fekk béréb boo xam ne moyukaayu yàlla la woon jaamukaayu xërëm la nga wattandi ko faa def ci sa jaamu yàlla ndax suñ la séenee dañ naan kee ma ngay jaamu xërëm ya ba tey loolu lu mat a daw la loolu lu mat a bàyyi xel la lu mat a amee xikma la tey bunt bu yaatu la nag sax dem na ba jéggi palaasu jaayukaayu xëram waaye place bu ñuy defe biddaa sax léeg-léeg yafa nit ñay def bu waxtu biddaa wa jàlloon nga ñëw di ko fa defit mën nañoo dem ba jàpp ne keekat moom it nekkati la gaa yi def moom lay def su ko defee kooku mooy charte bi ki nga xam ne dafa wékk nisaram itam ne su ma wéree danaa sarxe nàngam wala danaa woor nàngam yàlla dogal mu wér bu mu gëm ne maanaam charte bi condition bi mooy bu mu gëm ne lim nisar moo tax mu wér maanaam loolu lu ma ta bàyyi xel la bu mu jàpp ne loolu yi mu nisar ne yàlla danaa la ko defal moo tax mu mu wéral ko parce que yàlla doyubu ko dara sa jaamu yàlla yow bu dee bu dee ab yool la am sab yool la kon ne yàlla dama lay defal nàngam pour mu wér léegi dañuy wax koo xam ne dafa yoroon ay doomam yàlla dogal am mbokkam mu feebar mu ne yàlla de kii bu wéree kenn ci doom yi feebar mu ne yàlla kii bu wéree danaa ko yóbbu ci daara te loolu xam naa lu rëy ci ñoom la woon ci biir ceddo ga kooka dar gémmiñam ne ko ah loolu doy na waar bi nee na mu dar gémmiñam ne ko xaaral ndànk dama koy dama koy nax rek dama koy nax kon lu mel noonu lu mel noonu taxut ñuy wax day doon loo xam ne ci biir nisar bi bul jàpp ne mukk wér ga wala dara dafa doon loo xam ne suñu borom da koy doyee dara li nga nisar bëgg koo woor wala nga bëgg koo julli wala nga bëgg koo aji màkka loolu du loo xam ne suñu borom a koy jariñoo ba ngay jàpp ne dalaa faye loolu wéralal la sa feebar bi wala mu wéral la sa doom ji wala sa ka tukki woon ñibbisi man amu ci benn tasir dañoo daje nag rek waaye ginnaaw daje nañ nag te yow yaa ne woon su lii amee ma def lii kon loola dal nay war dal na lay war kon loolu ñu bàyyi ko xel bu baax a baax wa zabxu wa nadru wa gayru dalik nee na ak yeneen nag yu dul yooyu sax xeetu jaamu yàlla yi gën naa yaatu loolu gën na koo bari waaye nee na fafham na nga dégg na nga dégg loolu yi ma la wax hudiita yal nañ la gindi awdaxal masaalik yoon wi gën a leer ci yoon yi yoon wi gën a leer ci yoon yi woowu mooy wan siraatul mustaqim mooy yoon wan ba tey mooy yoonu sunna mooy yoonu sunna moo tax al imam abdullahi ibnu mubarak kenn daa ñëw ci moom ne yàlla yàlla nag mu saxal ci lislaam mu ne ko neel ak sunna mu ne ak sunna waaw kay ndax daayirab lislaam moom li ci askano lépp dafa yaatu waaye nag daayirab sunna mooy bi nga xam ne mooy aw doxul masaalik boobu borom téere bi ne yàlla nañ la gindi yoon wi gën a leer ci yoon yi kon amiin mu teg ci nag mu ne wa sarfu baadiha li gayrillahi mooy xaayida bi ma la junjaloon muy reegal bi shirkun wa daaka aqbaxu lmanaahi nee na wa sarfu baadiha jox lenn ci moom jaamu yàlla yooyu li gayrillahi ñeel keneen ku dul yàlla shirkun nee na loolu bokkaale la wa daaka te loola muy bokkaale aqbaxu lmanaahi mooy li gën a bon ci yi nga xam ne tere nañ ko nit mu def ko yi gën a bon ci loo xam ne yàlla tere na ko loolu mooy bokkaale kon bakkaar bi gën a rëy boo xam ne dañ koy moy sun woon tabaraka wa taala ci suuf ci kaw suuf mooy bakkaaru bokkaale kon daal xam nañ lan mooy jaamu yàlla tuddal nañu lenn ci xeeti jaamu yàlla yi itam mu mujje nag jox nu ne képp koo xam ne xeeti jaamu yàlla yooyu seet nga na nga xam ne noona la ko sun borom yeeyoo nga defal ko doomu aadama nee na kooku kon yaa ngay bokkaale wala nga defal ko leneen sax lu dul doomu aadama kon loolu mooy suñ bindu tey insha allah ñu xool leen ci question yi nga xam daf fee nekkoon xam naa waxtu wi yaatuwut ñu jël jël ko jël goo xam ne bu tontu yu gàtt lay doon insha allah mbokk mi moom defe naa ñaari leetar la yoo xam ne li ñu laaj sorewul te day nuru ne sax kenn kenn ndax mbind mi moom nuroo na lool dafay laaj ci lu jëm ci jalsatul istiraaxa bi nga xam ne Malik ibn al-Huwayris radiallahu taala anhu moo ko solo maanaam moo ko nettali mu ne moom da koo gis ci buluuxul maraam mu ne waaye ndax dafa bëgg nag moom yeneen yeneen dalil yuy dëgëral daal jalsatul istiraaxa xëy na moom ci buluuxul maraam la ko gis jalsatul istiraaxa bu ñu ko waxee mooy toogaay bu woyof bi nga xam ni nit ki da koy toog door a jóg su fekkee daa jógee ci rakkaa bu tóol maanaam jóge na ci benneelu rakkaa jëm ca ñaareel ba toog toogaay boo yef door a jóg wala jóge na ci rakkaalu ñetteel rakkaab ñetteel jëm ci ñeenteel ba toog toogaay boo yef door a jóg kooku la ñu tudde jalsatu listiraaxa jotaayu noppalu loolu nag fuqahaa yi ñoo ko ko tuddee maanaam borom xam-xam fiqi xadis boobu mu xam ne mi ngi ci saxiixul buxaari donte ñëw na ci bulooxul maraam waaye saxiixul buxaari ci la nekk sharia nag bu fekkee ne ab dalil xas sax xas na sax maanaam masala xas na sax ci ab texte boo xam ne bu wér la buñ amaatul beneen texte bu koy joxe it teewut loola moom lu wér la lu sax la ndax kooku dafa nett ne ne gis na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu di ko def kon nag loolu day wane ne wér na laaj bi mu laajaat it ba tey ci la jëm yaakaar naa ne kenn ki rek lay doon mu ne dafa dégg ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci at yu mujj yi la ko doon def bi mu demee ba nga xam ne dafa néew doole ñu xam ne loola wérut maanaam dafa doon loo xam ne lu bokk ci julli la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam doon ko def waaye du caagi ne dafa dem ba néew doole rek dool di toog jotaay bu mel noonu door a jóg ndax yonente bi alayhi salaatu wasalaam ak néewam doole àggul woon foofu àggul woon foofu ndax bu leen fàtte ne juróom benn fukki at ak ñett la dund te doonul woon ku wére di te it ñooñu ay nit lañu woon yoo xam ne ci seen wàllu wéru yaram wér gi yaram sore na ñëw nitu tey ñi ay bu ñu ko doon wax mu daggan ñu ko wax dañu wax ne ay sportif lañ yoo xam ne ñoom ci seen wàllu lañ doon jànkuwanteeg nañ doon dox di yéeg ca montagne yaag di war ca bileem yaag di dawal kon seen wér gi yaram weesu woon na di jóg muy jafe ngay toog door a jógaat foofu yonente bi alayhi salaatu wasalaam àggu fa woon bul fàtte ne ci ay atam yu mujj ci la jiite guerre bi nga xam ne mooy gazwatu Tabuk nga xam ne moom ci boppam moo wommat guerre boobu ànd ak mbooloo mi dem dellusiwaat Madina ci diggante boo xam ne mat na juróom-ñaari téeméeri kilomètre diggante ba Madina kon kon kooku jóg jëfewu ko woon ba ñuy wax ne loolu moo taxoon mu jóg beneen bi mooy gisuñu ci benn xadis buy wane ne néew doole moo taxoon mu di ko def sallallahu alayhi wa sallam te dalil boo xam ne dafa sax nag nekk mutlaq néewuñ lii moo taxoon ñu di ko def wute nañ ko illa la jaadu ci mukallaf mooy mu bàyyi ko noona kon daal lu sax ci julli la yonente bi sallallahu alayhi wasallam doon na ko def ab saxaabi nettali na ko jullit bi na ko def kii day wax laaj waajoo xam ne daal daa beru dafa beru soxnaam diirub li nga xam ne mi ngay jàng ca université ba maanaam mi ngi jàng école daal ñoom ñaar dëppoo nañ ci bañ a jote dara su fekkee déggu naa lim wax ci irtisaal lu mu ci jublu mooy mu bañ a am doom li fekk mi ngi jàng ala kulli xaal su fekkee ñoom ñaar nangu nañ ci du ëpp sëy ba noppi lay tax nit di sëy nekk doxul seen diggante te ñoom ñaar ñëpp juboo nañ ci kenn loru wu ca te kenn nit taxut loolu dugg ci mooy yàlla wala mu xalaat ko wala mu jëm fenn su booba kenn du leen wax ne par force il faut ngeen ànd waaye ala kulli xaal doonut lañ tànn doonut lañ tànn ndax maqaasidu sëy ci boppam maanaam jubluwaayam la tax ñu koy def da ca bokk mooy am ak njaboot te it yàlla moo xam yu mel noonu nit ki bu ko yàlla joxee occasion pour yu mel noonu mën a am li tax mu war a bañ a def ay calcul yu xóot yooyu te dund rek fam toll moo di calcul lu bare bari nit ki da koy def ngir ñëw jooy ko mën naa dem ba mu yàgg leneen gaar loo xam ne faf moom ci boppam faf mënatu la am doom wala keneen mun taw yu bari yu mel noonu day am am na ndaw suñu la doon nettali fii ci problème la joolaa bi fi amoon koo xam ne dañoo wax ne dafa defoon planning boo xam ne dafa fermé woon lépp limité de naissance tëj ak njurukaayam parce que am na lu ma juróom-benni doom yàlla dogal juróom-benni doom yëpp dem ca bato ba foofu juróom-benni doom la amoon dara dalu ko ci wér-gu-yaram wala lenn mais dañ la doom yi doy na daal di dem limité naissance bi foofu doom yëpp dem nag ci ci bato ba foofu nga delluwaat zéro nag kon yenn calcul yu xóot yi day jur musiba mat naa wattandiku ci ab jullit ci def ne dañu waxoon ci wàllu tadbiir wane ne suñ borom tabaraka wa taala mooy te plan yi mbir yi ñëw ca kanam mu ne ndax li yenn kër yi liggéeyukaay yi lu mel ne banque yi moom sax banque mondiale la wax yi ñuy def muy teg plan boo xam ne plan cinq